ña jébbaloon yàlla ak yonen ba seeni bakkan ak seeni jur raw nañu ñàkk ak lu dee si ragal ña jébbaloon yàlla ak yonen ba seeni bakkan ak seeni jur raw nañu ñàkk ak lu dee si ragal ñoo def lu wérul lu rafet ñoo am lu wér lu rafet ñoo nangu nangu na ñoo war saxaari ndigal njëbal gu wér rekk wér moo am njariñ ku ko def raw lépp loo bañ te jot loo bëgg jag te jagal ñilee ngi bafungu ñilee ngi waaxu ñii wari murit ya faf dugg gaalu cant benn fëxal aawus billahi min asheytaan arrajim bismillahi bokki jullit yi bokki taalibe yi ngi yëkkati sunu kàddu di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sëriñ ñoo ngi lay nuyu ci dugg su bokk yu baax yi nekk ci sa wet tey jëw li ñu buntu kër Cheikh Mouhamadou Moustapha ak ci turu diwaanu Mouridina muy kuréel gi nga xamante ne ni moo lëkkale mbooleem kuréel yi yëngu ci buntu kër yi njabootu Cheikh Mouhamadou Moustapha ci turu seen Ousmane kàddu yi nag kàddu yi sant la kàddu yi ngërëm la kàddu yi ñaan yooyu ñaan suñu borom tabaaraka wa taala mbalaanum suturam ni mu muur boppam ba bët tegewut ci moom loxo ak siwut ci moom yàlla na suñu borom dugal ci biir mbalaanum suturam moom ne barakat Cheikh Xadim di la sant ci sa taxawaay ci sàmm ormay sëñ Tuubaa yi di sant itam sa taxawaay ci kër gii nu bokk ci kër Cheikh Mouhamadou Moustapha di la sant sa taxawaay ci njaboot ndax jaamu yàlla nga bu nangu ak njaam ab jullit nga bu rafetal ak njullitam talibeb sëñ Tuubaa nga bu ko gëm te doy loo ku yéene ñëpp jàmm nga nit ku wayaf nga ku wayafal boppam nit ku mën a muñ nit ku yaatu xajoonu ci sunuy bang-bang ak sunuy jikko yu safaanoo nit ku tabee nga ci sa alal li nga am yaa ngi koy bokk ak jaami yàlla yi nit ku lawet nga koo xamante ni nii ku gis sa sittu jë daa xotti ormay diine mbaamu mu safaani ormay Sëñ Tuubaa nit ku dégg ndigal nga te loolu ñun ñëpp xam nañ ci dara ñu gis ni li may wax bariwaayu nit ñi taxut ma di ko wax ndax xam naa li ci bàkkaar wax lu dul noonu te wóor na ma ni itam ci bàmmeel la jëm te wóor na ma ni man képp ma ciy tëdd te su ma demee man rek na su borom di laaj kon kenn jëral lu ma wax lu dul noonu waaye li banki tànk da bankutum xel te li may wax maag mbooloo mi ñëpp ko bokk xamandoo kenn ku ne mën na koo seere hmm. loolu amee nañ la ci ak cant amee nañ la ci ak jukkal ndax kenn du la seen ci lu yàlla tere te lajaloo kenn ci alalam kenn du wéet ak yow it dara gor yàqu te loolu rek la ñu doy kilifa loolu nag ñun ñi nga xamante ni ñoom nga jab nga jaboote te ni jaxasoon ñëpp siggi nañ ci ci kaw ñëpp ba xam ni siggi nañ nu bëgg laa jàng dégg la xam sab joxoñ ñu jawale ci te doonu seen faneen ndax ki démb rek bi ñuy waxtaane si Mbàkke Madina danga noo wax ni nu lépp lu ca waay di wax na doon loo xam ne buñ ne la ab sooyee yi nga mën koo mar loolu moo ñu xamal ne la tappale yi xew ci jamono ak yeneen yi nga xamante ni mi ngi dugg si yoon wi sa yoon nekku ci te wax lu woo ko nga dellu waxaat ne itam ni dama bëgg ngeen xam ne yàlla doyewunu dara te nun mën nu ko ñàkk ku la doyewut dara nag te yow mënu ko ñàkk dangay def sa yitte jëpp ci wut ko loolu mooy lu dul jàmm yàlla ay jaaxaan la te foofu yi nga ne ñu bëgg mbooloo mépp xal ko loolu amel nañ la ci cant ñoom la ciy sant dina ñaanal suñu borom yàlla na la sàmm te taxawal la mm-hmm. barakatu Cheikhul Khadim wasalaamu aleykum wa rahmatullah ci kàddu yi li ñu war a wax lépp mm-hmm. ñu teg ko ci tur yi tur yi ñu teg ko ci xam moo ci defa jotaay ñuy wax ci turu turandoo eh, yi xam naa dana gis ci moom lool sax waaye ñu jéem rek waaye ñu wax ne ñun day suñ borom daf ñoo bind wax ne laa rayba fi fariqun fil janna wa fariqun fi sayr moom te ñàkk ngeen dugg àjjana daan ngeen dugg sawara daal dañuy wax ne allasiina dalla sahyuhum fil hayaati dunya wa hum yaxsabuuna annahum yaxsinuuna sunaa di jëf def ne li ngay def rafet na te fekk dara baaxu ci mu wax tamit ne faalul li maa yurid la lu ko neex def te dara ko ci fekk mu wax tamit ne yamhu Allahu maa yasaa su ma neexee yi ngeen def ba noppi ma effacé te ma ci bañ xamee loolee lañ xam ne lenn rek lañ xam suñu borom ko effacé mukk te noonu te loolu mooy li baax ci noonu mooy bëgg Sëriñ Tuubaa te bañ ko yemale daal ndax moo wax ne ixfir bi jaahi Mustafa li kulli man ahabani li wajhi maali sama li alxuraan wax nañu nañu nañu lépp lu ngeen mën di seq ba mu des ngeen nekk ay taalibi ak i sëriñ bu yowmal xaamee da ngeen gisante di dawante muy yow ma yafirul mar u min axi wa ummihi wa boroom a gënoon a xam ne ab sëriñ dana am ab taalibi dana am tudd ko dafa mel ni lu ñu mën a seq lu loola rek bu yowmal xaamee buñ gisante mën nañoo dawante rawatina suñ kilifa gu mel ni sëriñ Tuubaa nga xam ne nii dafa wax ne suñu borom dajale na mbooleem lu mu am ak ku mu am wala ku am ak cër ci moom ñëpp toog mu ne Serigne Touba mi laa jiital daal ne xaddamanillahu ala alfuddaani ñu defee ne fa mu daal ne yonent bi dajale na mbooleem ku mu am ak lu mu am ñëpp toog mu ne busirtu bi an rasulillahi xaddamani ñu defee ne fa la mu ne bu yowmal xiyaamee balaa kenn dugg àjjana man Serigne Touba maa ànd ak yonent bi dugg ba noppi kuy dugg doogu dugg daal ne sabaxtu xayri ilal jinaani mahanna bi alxurasil adnaani ba nu xamee loolee nag lañ fab suñu lépp def ko rek muy Sëriñ Tuubaa te bañ koo yemalee dara jëmm jii nag nga xam ne moo na fi dajale muy Sëriñ Mbàkke Madina dafa am aw bayit yu Cheikh Sidi waxoon ci Sëriñ Tuubaa nga xam ne ni Sëriñ Tuubaa nangu na ko bokk ak mbooleem njabootam koo xam ne nii am nga jaar nga fi la war jaaroo mu wax ne wa maa aybuhu illaa ibaadatu rabbihi wa naful wara fi sukrihi wa masaa'ihi sëñ Tuubaa day bu fekkoon am na ayib ñu ne mu ne waa am na ko de ñu ne mu ne waaye ayibam de du lenn lu dul jaamu boroomam ak di jëriñ bindee fi subaak ngoon loolee nag sëriñ Mbàkke Madina mii ñun tuuti nañ sax ci di ko seede waaye xam nañ ci ñaar yooyu rek am jëmm ju ma sa toog di ko xool ba si yàgg mu jooy ñu ne ko lan la mu ne sëriñ sépp suñu xëyee ñuy gën a am yaram sëriñ mu ne sëriñ sépp suñu xëyee ñuy gën a am yaram ba mu des sama sëriñ bi moom saa bu xëyee day gën a tuuti rek te dara warul ko dul jaamu yàlla rek loolu nag ñëpp xam nañ ci moom loola nun nag nu fare woonu ci li gën a metti muy li ñu féetewoo alxuraan daf koy laaj ndax ab daayira de kum neex nga bokk ci kum neex nga bañ cee bokk waaye nag ñi nga xam ne dañoo nekk turandoo Serigne Mbacke Madina yi képp koo xam ne sa wajur daf laa tuddi Serigne Mbacke Madina kóllëre moo tax mu tudde la ko te aw wa afoo bi la xam ne ilal na masula kon ñun suñ ko sàmmut bu yemoon xamee suñu borom daf na koy laaj mu woyof ci noonu boobu yowmal xam bu ñu ko suñu borom di laaj ñu am ci ndax am na ku ko jiite woon ku ñuy wax sëriñ Mbacke Dia def na ci ba jóge fi ñi ci des dajaloo jox lu nenu nañ ko jiite ñoom ñi ma jiiteelu tamit lu dul tur wi rek ñoo ma ca man lu dul tur wi rek ñooñu ca man man nag xàmmeewuma ci Serigne Touba xàmmeewuma sëñ Ibra ak Cheikh Mouhamadul Moustapha wala sëñ Abdou Khati wala Cheikh Abdoulaye sëñ Touba kon ñun foofu rek la nu nekk turandoo yu nu it bañ ko defee ci gàttal am na ay numéro yoo xam ne nii ku ci bëgg a bokk ma nga fee ci bunt ba danañ la ko jox du jar ñu koy lim ndax jotaay bu gàtt bi waaye li nga xam ne nii moom lañ xam ne moom la Serigne Mbacké Madina gënoon a bëgg jéem nañ ca lañ ca man ndax kenn ku ci ne ci noonu sasoo kaamil ba jàng nañ juróom-ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett def ko ko àddiyam te bu ci wenn araf nangoo donc mën naa jariñ fii ak fa jëm lépp nu ñaan di sax ca loola rek ci loola daal lañ nekk bu fekkee ci ne li ñuy waxoon xaj na defe naa jërut muy guddee noonu ndax jataay bi loolu moo ci am solo waaye di wax rek ne li ma waxoon ci tàmbale ba rek gën a jàpp sëriñ Touba bañ ko yemale dara ndax sama nijaay laa àndal moo sama yaay bokk ndey ak baay te ma ne moom a téyel samay daal te loolu bu du toon Serigne Touba am kon nag ñun luñ jàpp sëriñ Touba du la ko seex ma jëw paxa waxoon rek ne ko ataytuka la yaa xutbal wara mutaxayiban xanil ahli wal awtaani xayraka naasiya wa faraxtu ahli kulluhuma bika muminan wa alfaytu saamani ilayka nawaasiya wa lastu ubaali bil bariyaay jamiohuma isaaqadi ba wallahi in kunta raadiya ñun day banañ suñu lépp ñëw ci yow soo nu bëggee soo nu gërëmee lépp baax na soo nu suñ ñëpp meree te nga gërëm ñu doy na sëkk waaye suñu ñëpp gërëmee te nga mere ñu suñ dara baaxul ñun ci loolee rek lañ nekk kàddu yi noonu koy jéglu lu ci lu jub def nañ ko addee sëñ Tuba wasalaamaaleykum papa papa Ndiaye sëriñ Cheikh Mbacke Madina mbooloo mi ñu ngi lay nuyu nuyoo bu gën a rafet ci nuyoo yi di la sant cantu xol ak cantu làmmiñ di la ziyaara ziyaara bu ñu tëbbee ci suñuy dënn di ñaan sunu borom subhanahu wa mu may la fan gudd lool ak wér gi yaram ak kattan ba nga àggale sa yéene ci lislaam te nga ànd kook nun noo ngi nuyu kilifa yu tedd yi fi teew di njabootu Cheikh Mouhamadul Moustapha di leen sant bu baax di leen ñaanal ñu yàgg fi lool te yàgg ànd ak ñun jataay bi ndax lii rek la Cheikh Moustapha Mbacke bëggoon lépp nekk benn te njabootu Cheikh Moustapha rek ñoo fi teew te jataay yu mel nii dafa am solo lool ci nun taalibe yi ndax danañ ci jànge lu bari rawatina mbirum ittihaad muy ak bennoo ndax yéen suñuy kilifa ak bennoo rek moo leen ñor bu ngeen sañoon jullit ñépp nekk benn rawatina njabootu cheikhul xadim xadim rasul te moom ñaanoon na ko boromam wax ni yaa rabbi ijalil muridina maa fi hisnikal xasin wasam lañ maa sëriñ cheikh mbacke madina mbooloo mi ñu ngi feddali seen cofeel ak seen yitte ak seen kóllëre ci yow ndax wa awfoo bil ahdi innal ahda kaana masulan sëriñ bi mbooloo mi ñu ngi yeesalaat seen pas-pas ci gën a jaayante ak yow fii noo ngi dund noo ngi déglu rekk ndigal te fas ko yéene jëfee ni nga ko bëggee te fasunoo yéene nekk ci lu ñuy tere na saxaaba ya jaayante woon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mag ña jaayante woon ko ak sëriñ bi noonu rek la mbooloo mi di jaayante ak yow ndax saxaaba ya ñoom dañoo jaanu yàlla seen bakkan ak seen alal ba yàlla fay leen ci aljanna inna allaha istara min al muminina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahum janna te nun ñii kat da ngeen ñoo bàyyeeg suñuy bakkan te suñuy alal mi ngi ci suñu coobare te la ñu defaloon saxaabee rek la ñu bëgg kon nag mbooloo mi nañu gën a góorlu ci liggéeyu sëriñ Mbacke Madina bii te xam ni moom sëriñ Mbacke Madina ñemewul bor daa am pay ndax mas naa wax sëriñ Abdul Xarim Mbacke ne ko ba ma xàmmee ak léegi mosuma def lu naqari yàlla te la sun te loo te la sunu borom subhanahu wa taala waxoon yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko maa yantixu anil waa mënees na ko wax sëriñ Mbacke Madina ndax nekkoon na koo xam ni ñépp ko seereel dëgg ragal yàlla mu nekkoon rajulun taqiyun saalihun nekkoon adibun zuhayain alimun muallimun nekkoon saqiyun bila manin kalaaman yu layinu kon jikkoy sëriñ Mbàkke Madina mooy jikko yenent bi sallallahu alayhi wa sallam te mbooleem jikko yii ak melokaan yii gis nañ ko ci yow sëriñ Cheikh Mbàkke Madina ba tax mbooleem yoonu murit ak lislaam yépp nangu nañu ni fa sëriñ Mbàkke Madina tegoon tànkam muy siraatal mustaqim fa nga teg sa tànk te mosoo ko wàcc benn yoon li jamonoy soppiku soppiku yaa ngi sàmmonteeg yàlla subhanahu wa taala ci ragal ko ak wóolu ko ak yaakaar ko ak doyloo di ko jaamu di jariñ mbindeef yi di leen yërëm di leen dimbali di muñ seeni lor di suturaal seeni ayib kon mbakki ab sag ab sag nga ci yoon wépp ba tax na mbooloo mi ñu ngi lay sant bu baax ci taxawaay bi nga taxaw ci sàmm ormay yoon wi ak sàmm done ndone yi li fi mag ñi bàyyi woon taxawaay bi mat na sëkk mbakki te rafet na yàlla te nga ànd ko njabootu Cheikhul Khadim gépp sëriñ Cheikh Mbacke Madina mbooloo mi ñu ngi lay ziyaar ziyaara bu ñu tibbe suñuy xol bu ànd yaakaar ndax sa maam ji tedd ja moo waxoon ni zurman tuhibbu wa in sattat bika daaru wa haala min dunihi sahlun wa awaaru laa yamnaannaka bu'dun min ziyaaratihi innal muhibba liman yahwaa zawaaru noo ngi sàkku nga defal ci sunu ziyaara bii tawféex ak pajum aajo ba bu ñu delloo ku ñu dajal sa aajo fañ sëriñ bi noo ngi sàkku ci ziyaare bii la mag ña demoon sar-sar amoon ca ziyaare ba ñu ziyaare ji woon cheikhul xadim sëriñ cheikh Mbacke Madina noo ngi lay seereel ni daayiri yi aju ci fédération islahu daayiri ni bu sëriñ Mbacke Madina ci biir réew mi ak bitim réew liggéey bi rek moo leen ñor te mooy fexe ba mbooloo mi nekk benn guddi ak bëccëg ña ngay daje di def ay réunion ak i ensemble ngir bennale taalibe yi ngir bennoog jullit ñi ba tax na fu fi ab daayira nekk ña ngay kër kër yi ngir bëgg lu ak sàkku sa ngërëm ndax wàcc moom benn yoon rek lay am te la nga nu waxoon fii duñ ko fàtte mukk da nga ñoo waxoon ni lépp lu nit ki sonn ci sëriñ Touba lu coono ba rëy rëy lu metti metti jotuñu la Serigne Touba sonnoon ci yàlla ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon nag loolu ku ko war nañoo mën a muñ bi sëriñ bi mbooloo mi nee nañu seen xol sedd na seeni xel dal na seeni yaakaar day gën di dolleeku saa su ne seen seen njot rafet na ngir la sëriñ Mbacke Madina bëggoon magam ju tot magam ju tedd ya sëriñ Cheikh Ahmadou bëggoon ko seen rakk yu tedd ya bëggoon ko Cheikh Mouhamadul Moustapha bëggoon ko lool ba daa ko ñaan boroomam daa ko dénkaane ba tax mu wax ne wajtahidu aydan fi islaahi zaati baynakum li takunu yaddan wahidatan muy ñu nekk benn jataay bii wane na ko mboolem daayira yi nekk daarul xuddoos ñëpp a teew te màggal gii ñoom ñëpp taxaw nañu ci taxawaay bu rafet ci fànn yëpp ci seeni membre ak seeni matériel lépp luñ ci soxla jox nañu ko te yàkkamtuwuñu ci dara te nii lañ koy àndeek mbooleem njabootu Cheikh Mouhamadul Moustapha gi ci bis yi ñuy amal ci Daarul Xudóos ba tax na Mbàkke nanga nga ñu ñaanal ba bennoo gii gën sax ñu gën ñu gën ci am tawféex ndax Cheikh Mouhamadul Moustapha daana wax ni yoonu xeex ak yoonu xuloo yoonu sawara la te man Mouhamadul Moustapha du ma ànd ak kuy dem sawara kon nag Mbàkke nanga ñu ñaanal ba bu ñu werante sax Serigne Cheikh Mbacké Madina mbooloo mi ñu ngi sàkkul ñaan mboole mbokki taalib yi nekkoon ci liggéey bi te jiitu ji yàlla doole leen yërmaane ak xéewal xam nañu sax fàttewoo leen sëriñ bi mbooloo mi ñu ngi sàkku ñaan noog njaboot gi nga ñaanal nu suñu borom dimbali ñu tey ak ëllëg doole nu yërmaane ak xéewal ak mucc tey ak ëllëg Serigne Cheikh Mbacké Madina mbooloo mi ñu ngi sàkku nga ñaanal leen sunu borom subhanahu wa taala mu saafaraal nu raggi xol ak raggi yaram yi ak wërsëg bu barkeel te nawet bii yàlla àggale ko ci jàmm ndox mu barkeel te ñu jariñoo sëriñ bi na nga ñaanal réew mi yàlla dolli fi jàmm ak kaaraange ci barkeb sëriñ Mbacke Madina te def ko ci àdduna sépp rawatina ci réewi jullit ñi Mbacke nun ñëpp am mbégte ci jataay bii ndax jataay bi yombul ndax sa maam ju tedd ja moo waxoon ni ku jublu yàlla ci boroomam ku jublu ci boroomam ànd ak wasiila yàlla dana ko wammatal lépp lu mu yéeg jëm ci lu rafet man aqaban ila llahi tabaraka wa taala mahal wasila qaada ilayhi kulla ma kaana yartaqi ilayhi min al jamila sëriñ cheikh Madina lii moo nekkoon kàddu yi jóge woon ci mbooloo mi noo ngi jéggul bu baax tey ñaan sunu borom mu yàgg la fi lool te may la ak wér ak mucc ak kàttan yaa njabootu cheikh Mouhamadou Moustapha gépp bi barakati cheikhul xadim rasulullahi sallallahu taala sant bu baax ba mu bokkee ci ñooñam euh, te mu bàyyi fi ñu baax ñu tedd ñoo xam ne euh, njàngaleem yépp def na ko ci ñoom jëmbatu ci ñoom te loola dem ba egsi ci ki nga xam ne moo ñu fi indi tey muy Serigne Mbacké Madina euh, la leewoon ci moom lépp ci makaarimu axlaax mu def ko ci moom moom it alhamdulilah mu tawfiqal ñu loolu lépp nekk ci suñu wax ju tedd ji di Serigne Cheikh Madina euh, ni ko waxee wax nga dëgg ndax euh, jamono dafa mel ne day gën di jëm ci taqalikoo te Serigne bi lii fi teew ci lu baax ak ñu baax ku leen mën a fexe ba téye leen daf leen ne peri kurus kooku yaakaar naa ne lu sëñ bàcc dellu si woon dana la wax ndax loolu rek la ko Serigne Touba bàyyi loolu kon loolu rek dañuy euh, wax nu ci roy wax wu ne ci sëriñ bi te xam ne ko mag kilifa la hmm. bu dee ak baax baax na bu dee ak yaatu yaatal na bu dee woyof woyof na ni ko suñu Amadou Ndiaye Ngiraan waxee loolu ñun ñëpp seere nañ ko te nit buy wax la ca gën mooy la muy wax képp ku ko dégg xam ne lii dëgg la hmm. kon alhamdulilah loolu moo ci am ñu ñaan yàlla guddalu faram hmm. suñu fierté la maanaam dañ koy tiitaroo ndax jamono dafa jax lenn loo seet lu ne te Jóob ni ko waxee léegi mel na xel bankuwul kenn ku ne sa cëre ngi banku waaye xel yi bankuwul te melokaan wii wax dëgg yàlla melokaan la wax ne sagal na kër gi sagal na xaadimu rasul sagal na képp koo xam ne teewal nga fi xaadimu rasul kon ñu ngi ñaan kenn ku ne ñaan ci xolam suñu borom yàggal ko fi bu baax a baax a baax ndax ku mën kenn ku ne la Cheikh Mouhamadou Moustapha waxoon ka ñëwoon fekk si ko ne ko dama laa bëggoon a jàppale ndax coono yi bari na mu ne ko tàmbaleel ci jàppale ma ci sa bopp dama waaw sëriñ bi loolu la ñu jàppale dafa jàpp noo xam ne ku ko gis ci moom fasaasa boo fi jógee rek da koy jàppale ca nan la war a mel ndax na mu war a mel noonu la mel kon ma jox ko mu àggale loolu rek dañ ko ci doon barkeel loolu ndax digal des aleykum wa rahmatullah sëriñ bi nee na mi ngi nuyu mbooloo mépp di leen sant di leen gërëm nee na mi ngi jëkkee ci bokki boppam yi mu bokkal Cheikh Moustapha te lépp lu mu nekk lu nekk ñu nekk ci ak moom di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal nee na la ca des itam mooy ñi taxawal bis bii di ci sonn daaw ba léegi ñu ngi ci bëgg rekk mu yéwén ak fu fi daayira nekk ci biir réew mi ak bitim réew ñu nga ca loola kon nee na mi ngi leen di sant te di leen gërëm te di leen ñaanal nee na la ca topp mooy fàttali rek li nga xam ne moo ñu fi indi te moo di jaamu yàlla rek moo tax suñu boroom indi ñu fi nee na kon nag nan ci sax bu baax a baax te wattandiku tere yi te xiir ci njaboot gi nee bu ñu defee li nu suñu borom digal wattandiku li mu tere kon la mu waxan ci lum dële dinañ ko jox te nee na loolu rek am njariñ nanu gëm yàlla bu wér bañ koo boolee dara jaamu yàlla bu wér bañ koo boolee dara doyloo yàlla bu wér ragal yàlla bu wér bañ koo boolee dara nanu boole suñu bopp jàppante ngir yàlla di dimbalante ngir yàlla di jéggalante ngir yàlla te maandu lépp lu sunu yoon newut ñu bañ lépp lu amul njariñ tey ak ëllëg ñu bañ caa jëm jëf ñoo ngi leen di sant di leen ñaanal sunu borom dolli leen ndimbalul tey ak ëllëg ak muccub tey ak ëllëg ak xéewalu tey ak ëllëg ak jàmmi tey ak ëllëg tawféexi tey ak ëllëg jërëgeen jëf ña bakkan ak seeni jur raw nañu ñàkk ña jébbaloon yàlla ak yonen ba seeni bakkan ak seeni jur raw nañu ñàkk ak lu dee si ragal ñoo def lu wérul lu rafet ñoo am lu wér lu rafet ñoo nangu nangu nawet ñoo war saxaari ndigal njëbal gu wér rekk wér moo am njariñ ku ko def raw lépp loo bañ te jot loo bëgg jag te jagal